jërëjëf ñi ngi daje tey fii ci centre de santé saalu centre santé euh, bu dixième Thiès Euh, nana waxtaane ak euh, yéen ak njaboot gi en tout cas euh, liggéey bi nu liggéey ci semaine bi nga xam ni dafa bawoo ci xalaat yoo xam ni sunu njiit yi nekk ci kaw ñoo ko xalaat bi nu nekkee gàmmu Tiwaawoon ministre bi dafa ñëw ànd ak directeur national du service national de l'hygiène muy médecin colonel Moussa Dieng Sarr bég lool ci liggéey bañ fa liggéey bég lool ci liggéey bi ñu liggéey ci màggalu Touba bég lool ci liggéey bi ñu liggéey Euh, euh, Kaolack waa service d'hygiène Kaolack ci gàmmu ñeseen yi waaye mu ni nag léegi moom dafa dootul rek yem ci euh, bëggatul rek service d'hygiène boo xam ne si bu xaw-xaw amee mu mu doxal ko ba mu baax dafa bëggatul léegi il se contente plus du service d'hygiène événementiel ba ñu jógee foofu xam naa ci la kilifa gi nga xam ne moom la àndal ndax euh, euh, junj doy na borom xel ci la kilifa gi bi mu delloo daal di dajale réunion bu mag ñu daje Mbuur mu borose ko fa nu waxtaane ko bi mu delloo mu xaatim benn euh, dogal bu wane ni donc danoo war a jël benn doxalin wu tudd aar askan wi ci ci ci jàngoro yi loolu mooy dajale service d'hygiène Euh, euh, ni mu gën a bare ci région bu nekk comme danoo saaro boo ñëwee ci région euh, Thiès bi juróom-ñetti bànqaas lañu fi am na am na Thiès am na Xombol am na Mexe am na Tivaouane am na Mbour am na Caajaay ak Joal ak Popenguine juróom-ñetti service yooyu boo ko dajalee fenn fu ci nekk ñett ñeenti nit juróomi nit a fay nekk ndax ci biir région bi yëpp matunu juróom fukki nit mu ni nag léegi au ñu bàyyi ku ne fa mu nekk di di di fa nekk nga xam ne ay ata ata ngi nii ñu naan gisuñu cellule d'hygiène dafa bëgg léegi weer wu nekk lu bon bon benn yoon ñu dajale lu mat fanweeri élément ñu dem fenn am fa ayu bis liggéey liggéey bi bokk ko ak euh, euh, kilifa ya fa nekk xool lan moo fa yelloo ci liggéey bi ñu def ko bu ko defee boole ci ñëpp muy mbootaay yi di daayira yi di groupement féminin yi di comité de santé yi euh, ñëpp ànd ci bu ko defee foofa bu nu fa defee ayubis danañu gis ni cellule d'hygiène dellu si la ñu fay bàyyi ci liggéey nag mu jaar mu jaar topp maanaam ñu ko wax suivi réunion bi nu nekk mooy wane ni kenn ku ci ne am nga ci wàll loola mooy waral donc loolu mooy lu bees li nga xam ni moom la ñu ñëwee. nu tàmm nu tàmbale. Cees ko dooree yan Cees la ñu ko dooree Cees euh, précisément commune d' arrondissement Cees ouest avec le maire Aliou Sow euh, euh, li ñu fi def rek mooy. Euh, dugg nañu ci kër yu bëree bëree bëree bëri dugg nañ ci lu weesu juróom-ñetti téeméeri kër ci ñeenti fan yi loo xam ne bu ñu ko doon bu ko waa Cees doon def mën nañu fee am ay weer duñu ko def def nañ ko ci ñetti fan ñeenti fan dugg nañu aussi ci barab bi bépp fu ñu jaayee lu ñuy lekk mbaalu ñuy naan dugg nañ fa pour saytu xool ba xam ndax lekk ga wala naan ga ñii ngi koy jaarale ci anam yi mu gënee yi nga xam ne si du am benn euh, tolof tolof pour euh, lor ki koy jënd dana dugg aussi topp nañu aussi ndox mi ni naan teen yi ak même robine yi ak même njaq yi ndaa yi ak siwa yi ñuy def ndox ci kër yi sax fu nekk dem nan fa cof fa as yóbbu ko càmbar ko ci eh, eh, laboratoire bi xool lu ca nekk yooyu tamit day fa day day day jëfali eh, doxalin yoo xam ni dana tax nu mën a bu nu gisee liñ ci gis nu mën a dellu ci nit ñi wax ak ñoom bokk na ci aussi ni ñu wax jooju ma wax ay causeries ay waxtaan yoo xam ne si fépp foo xam ne nemmeeku nañu ni war nañu faa dajale mbooloo wax ak ñoom dajale nañ fa mbooloo wax ak ñoom euh, booleeg yi nga xam ne mooy entretien individuel yi nga xam ne agent bu nekk ko recevoir da nga ko def loolu daal mooy li nga xam ne mooy paquet d'activité bi nga xam ni euh, mboolem euh, yëngu yi nga xam ni yëngu nañ ko ci ay bis gi. visite domiciliaire yooyu ndax li mu wane wane na yi lekk gi naan gi yëpp sell na waaw visite domiciliaire yooyu li mu wane mooy surtout mbirum mbalit mi fi mu war a tàmbalee. muy poubelles yi amul fépp donte Thiès dëkk bu mag la euh, dañuy dañuy dañuy dama laan wax rek ni la la euh, kaar daanaka kaaru kaaru kër yi ñu gis ñeenti kër yu ñu dugg benn bi moo am poubelle réglementaire loolu rek màndarga la loolu doo doo kii na euh, aussi lii bariwul mais am na kër yu nu dugg yoo xam ne amul bërëbu suturlukaay lool tamit nit ñu bëri yaakaar na ni amul Thiès mais am na fi des domiciles sans sans ouvrage d' assainissement sans latrine ak ay teen euh, teen yi aussi ñu ngi ci biir ñi ngi ci biir euh, kër yi ñu ngi ci biir ñu ngi ñi ngi leen di topp di leen xool li am solo ba am solo daal mooy gis nanu ni biir kër yi nit ñaa ngi góorgóorlu danoo baaxoo di xëy di bale danoo baaxoo di xëy di di di luxarti di defar di kii waaye ba léegi bu fekkee dañuy bale te mbalit mi du génn ci kër gi ndax mbalit processus la euh, bari na kër yoo xam ne fekk nañ fa mbalit yu bari yu taaju bari na kër yoo xam ne seen i ndox yi raxasit dañuy génn baw ko ci mbedd mi donc euh, loolu yëpp gis nañ ko muy ay infraction yoo xam ne si domiciliaire la euh, euh, am na ci aussi yenn kër bariwul mais yon xam ni xëy na dañ leen a teel a xëy wala ñu xëy amuñu jot maanaam bale niñ koy bale bale bi maasewul ndax kër bu ñu xëyee fépp la ñu war a bale infraction yi daal yi ci ëpp ci kër yi loolu la gis na ni aussi ndox yi niñ koy dencee ci kër yi léeg-léeg dañ leen di laaj ndax da ngeen da ngeen ndox mi ngeen di naat li ngeen di def ci ndaali yi wala li ngeen def ci sio bi wala li ngeen def ci même bidon yi ngeen def ci frigo yi ndax da ngeen ko javelisé parce que ndox mi bu ñu ko rootee ci robine bi bu defee vingt quatre heures bu fekkee loola jeexul dañ ko a dañ ko war a dañ ko war a sàmmaat dañ ko war a defaraat donc loolu lu am solo la ndax color résiduel bi bu defee vingt quatre heures dafay daal di jeex bon li ñu leen di digal rek tamit gis nañ ko mooy ndox yi nga xam ne moom la ñuy taaj di ko naan ci kër yi nañu def lu yem loo xam ne bis bu ne bu ñu xëyee raaxa euh, tuur la ca des raxas duyaat. ah waaw bi na teg loxo ci xam ne baaxul. waaw wàllu euh, njaay ak njënd bi ñam yi am na lu bari luñ teg loxo ndax loolu moom euh, jamono jamono jamono jamono ko wone déjà boo demee ci marché bi am na loo xam ne si dafa baaxatul ndax lépp lu ñu liggéey ñu koy lekk. ñu di ko jaay am na gàpp bu dee dafa jóge ci usine ba am na gàpp ba nga xam ni moom la ñu tuddee euh, date de validité bi euh, donc am na ci yoo xam ni périmé nañu am na ci yoo xam ni àggaguñ fa waaye ni ñu leen dencee ak ni ñu leen tegalee ni ñu leen defee tax na anam yooyu yàqu na mooy altération léeg-léeg am na ci yoo xam ne bu jegee lumière wala mu jegee fu tàng day gaaw yàqu mooy lépp loo xam ni soow la ak lu xeetoog moom wala lépp loo xam ni si euh, kii bër la ak ak lu xeetoog moom ci yooyu fànn dañuy dañuy fragile boo ko boo ko boo ko jàpp boo ko gisee daal jàppal ni am na ci yoo xam ne si dañ leen a sàngul muuruñu leen parce que ñam yi aussi donte baax na bu fekkee danga koy jaay ta anam yi ni yoon wax ni nii nga ko war a jaay jaay woo ko buñ ko fekkee dañ koy jël ndax mën na nekk posonu posonu askan bi waaw nous sommes réunis ce matin pour faire la réunion de restitution d'un travail qui est euh, un concept nouveau euh, lancé par euh, l'autorité centrale c'est-à-dire le directeur du service national de l'hygiène. Euh, face aux difficultés que tout le monde a constatées autour du service d'hygiène, c'est-à-dire un peu l'invisibilité, la rareté des ressources humaines et des moyens. Donc euh, c'est un peu l'analyse de tous ces facteurs-là qui a abouti à ce que la direction du service national de l'hygiène Euh, lance un concept euh, intitulé Aar Askan Wi ci jàngoro yi donc euh, cela consiste à rassembler le maximum de ressources humaines et de moyens matériels quelque part pour un temps c'est-à-dire au moins dans un mois euh, rassembler 30 agents du service ici dans la région de Thiès, quelque part, au niveau d'une sous-brigade. Euh, la région en compte 8, c'est Thiès, Mbour, Tiwawon, Mekhe, Khombol, Joal, Popengine et Tchadjaï. Donc au moins une fois dans le mois, au lieu de laisser les éléments dispersés euh, dans les formes où actuellement nous évoluons, c'est-à-dire trois éléments ou quatre éléments par structure, rassembler pendant une semaine une trentaine d'éléments, de planifier, de donner un contenu à un paquet de travail, donc en associant les autorités locales, les organisations communautaires de base, les autres services techniques, à savoir le développement communautaire qui nous a beaucoup aidé à identifier euh, les OCB, mais aussi les services de santé, euh, à travers donc les médecins chefs de district, les équipes cadres de district et les comités de santé. Donc euh, tous en, euh, en un seul euh, élan, essayer d'élaborer un contenu. C'est maintenant ce que nous avons mis en, en œuvre ici à la commune de Thiès-Ouest, dans la ville de Thiès, pour la première fois, donc pour euh, le, le, le premier coup Nous l'avons, euh, nous l'avons euh, réalisé ici à Thiès, au niveau de la commune d'arrondissement de Thiès-Ouest. Et quelles les opérations que vous avez eu à mener dans la région euh, Les opérations consistent d'abord à entrer au maximum dans le maximum de maisons. En fait, euh, euh, comme nous voulons, nous, euh, en tout cas, relancer la visibilité du service, c'est de mettre tous les éléments dans un quartier. Si 30 éléments évoluent dans un quartier, entrer dans toutes les maisons, en tout cas, voir euh, tous ces aspects-là, euh, je crois, euh, nous faisons d'une pierre deux coups. euh, nous rendons visible, en tout cas pour ces populations-là, le service, mais aussi nous couvrons le maximum de maisons, puisque vous le savez, au niveau des, des, des ménages, au niveau des, des, concessions, il y a des problèmes d'hygiène qui se posent avec acuité. Donc il va falloir qu'à travers cette prospection domiciliaire-là, que les agents, en tout cas, délivrent des messages après avoir, euh, en tout cas, inspecté toute la maison, euh, donner des messages tout de suite et maintenant sur place. Et si nécessite qu'on convoque euh, le propriétaire, en tout cas, en tout cas le chef de ménage, pour des entretiens beaucoup plus poussés ou pour, parfois même pour appliquer la police de l'hygiène, parce que parfois aussi il s'agit de ça. Euh, donc, euh, bref, euh, faire tous ces les lieux que nous visitons euh, dans la routine, les maisons, mais aussi les, les établissements recevant du public. partout où les gens manipulent les aliments, partout où les gens, en tout cas, exposent des aliments, euh, nous sommes aussi à, à, à appelés à, y entrer et à vraiment faire le travail. Il y a, aussi un, as, un, autre aspect que nous avons euh, mis en exergue, c'est le suivi de la qualité de l'eau de boisson. Donc il y avait une équipe eau qui a pratiquement fait tous les puits de caisse euh, contrairement à ce que l'on pense, Thiès regorge de beaucoup de puits et des puits qui sont utilisés pour la consommation humaine. Euh, donc les résultats projetés vont montrer euh, l'ampleur des problèmes, les dégâts. Euh, sur l'ensemble des puits euh, où nous avons effectué des échantillons et où et nous avons fait l'analyse, il n'y a qu'un seul qui n'est pas contaminé, euh, disons, par en tout cas nous n'avons pas décelé de témoins, de germes témoins de contamination fécale. Souvent, les populations ont peur de recevoir chez elles des agents du service d'hygiène. Quelle est la stratégie pour quand même euh, leur faire confiance, pour, pour, pour, que les populations puissent avoir confiance euh, peur, je crois, je crois, je le dis souvent, les gens n'ont plus peur de la tenue. Jadis, quand la gendarmerie arrivait dans un village, il n'y a que le chef de village qui reste. Tout le monde disparaît. n'est-ce pas Ce n'est plus, ce n'est plus la peur, moi je ne l'appelle pas peur. Peut-être que euh, les gens ont peur de leur poche. Parce que quand ils le, le service d'hygiène, que la police de l'hygiène aussi est avec. Mais ce n'est pas un corps euh, habillé en tant que tel avec la tenue dont les gens peur. Je pense que les gens devaient avoir plutôt un, un sentiment contraire en voyant le service qui parce que dans, dans l'idée que le service d'hygiène nous apporte le bon message, qui nous permet d'améliorer notre cadre de vie, qui nous permet d'avoir des messages sur, euh, sur l'hygiène de façon globale, l'hygiène de l'eau, l'hygiène euh, des aliments, l'hygiène corporelle, en tout cas dans tous ces Donc je crois que c'est un, c'est un, c'est un, plutôt un partenaire qu'il faut toujours, euh, qu'il faut toujours euh, attirer dans son, dans, son, dans coin pour en tout cas bénéficier de ces, de ces trucs-là. Mais si les gens maintenant savent qu'ils sont euh, dans des en tout cas, conditions euh, contraires aux lois et aux, et aux normes, eh alors, il, y a de, quoi avoir peur du cellule d'hygiène. Parce que le cellule d'hygiène, c'est certes l'éducation à l'hygiène, mais aussi c'est la police de l'hygiène. les marchés et les rues. Est-ce euh, nous venons dans, une localité, j'ai dit le contenu est élaboré en collaboration avec tous les acteurs. Si au niveau de la mairie d'arrondissement ou de la mairie de ville où nous devons évoluer, euh, la priorité est axée sur ces aspects, mais c'est sur ces aspects-là que, que, nous allons mettre euh, l'accent. Mais dans tous les cas, il y a des activités de routine, la prospection domiciliaire, c'est-à-dire visiter le maximum de maisons, entrer le maximum de lieux vente des denrées alimentaires, voir le, euh, le maximum de sources d'approvisionnement d'eau. Et même maintenant, nous dépassons la source. C'est-à-dire nous prenons l'eau du forage, l'eau de la SDE dans, le réseau, mais aussi nous prenons dans les maisons euh, au niveau des, des, des, des, récipients de stockage d'eau. C'est-à-dire le, le ou le seau ou le frigo, là on boit, on prend des échantillons et là aussi, les résultats vont vous montrer euh, des choses euh, qui, qui, vous, qui, qui, qui, vont peut-être euh, qui, qui, sont effarantes. Parce que quand nous venons dans une maison pour faire le lever, nous disons, euh, nous voulons boire. Donc donnez-nous à boire. On va prélever donc là où tout le monde boit. Et nous, nous prenons notre échantillon. C'est euh, sur ces échantillons-là que nous avons découvert aussi des choses qui ne sont pas du tout euh, favorables à une bonne santé euh, au niveau de, du ménage, au niveau de la famille, surtout chez les êtres physiologiquement faibles, faibles c'est-à-dire les enfants, les femmes et les, et les, les, et personnes âgées. des, saisies ou des sanctions Des saisies, oui. Dans le, dans le domaine de, du contrôle de la vente des denrées alimentaires, nous avons opéré beaucoup de saisies. Il y a des, des produits périmés, il y a des produits euh, altérés, qui ne sont pas périmés, mais du fait que les conditions de conservation n'ont pas été idéales. Il y a aussi euh, euh, euh des produits euh, qui sont mal protégés. Euh, dans tous les cas, si la, la denrée est, est bonne et qu'elle n'est pas vendu dans les conditions de conservation et de protection, elle est saisissable comme le, le produit. Donc on a fait des saisies. Je crois que la, euh, la restitution, les chiffres vont, vont le montrer. Euh, on a fait des saisies et on a aussi euh, fait des amendes, en tout cas appliqué des amendes par rapport à toutes ces personnes-là sur lesquelles ces saisies ont été euh, opérées. Vous ne pensez pas qu'il faut des solutions structurelles plutôt des solutions conjoncturelles Euh, structurelles et conjoncturelles, sinon les deux à la fois. Je, nous n'avons pas le choix. De toute façon, nous faisons avec ce que nous avons. Euh, c'est compte d'analyse de la, prise en compte de la réalité sur le terrain que nous agissons et nous réagissons. Donc c'est pourquoi c'est intéressant que tout le monde s'associe, tout le monde invité ce matin ici, à commencer par la presse que vous êtes, les acteurs au niveau des collectivités locales, les acteurs au niveau des autres services techniques de l'État, parce que nous ne sommes pas seuls dans le domaine de l'hygiène. L'hygiène étant un, un, publique, avec la SDE, avec l'assainissement, avec l'environnement, avec euh, l'ONAS, avec tous ces services, tous ces segments de l'État qui travaillent donc dans le même secteur. Mais aussi nous travaillons, nous voulons que les collectivités locales, en tout cas, accentuent leur présence par rapport à ça, à la gestion euh, du cadre de vie. Nous voulons que les comités de santé, que les structures de santé euh, s'imprègnent tout cas davantage et, et, et prennent en compte ces euh, certes, mais aussi niveau de la communauté de façon globale. Donc je pense que euh, nous, nous, nous, nous, souhaiterions avoir euh, en tout cas un appui euh, beaucoup plus consistant par rapport, euh, comme vous le dites, euh, euh, au personnel. Et ça, c'est vraiment euh, un appui institutionnel qui règle le problème. En attendant, nous, nous faisons avec ce que nous avons et nous sommes euh, si les populations s'associent, si les différents acteurs s'associent à cet effort, nous pouvons en tout cas améliorer de façon significative euh, le cadre de vie et vraiment, euh, donc par conséquence, booster euh, l'état général de santé de la population par rapport en tout cas aux facteurs d'hygiène. Vous avez rencontré une contrainte particulière sur le terrain Des contraintes, il y en a toujours. C'est pourquoi nous avisons toujours le, monsieur parce qu'en réalité, c'est l'être humain qui est ainsi, ainsi, ainsi fait. Euh, mais particulièrement, il n'y a pas, il n'y je dirais pas qu'il y a une, une, difficulté majeure. Il y a toujours des difficultés, mais nous les gérons. Et Dieu merci, cette fois-ci, nous n'avons pas de cas exceptionnel qui a nécessité euh, un déferment, en tout cas, ou un, truc euh, avec le procureur. Nous avons tous résolu euh, in situ au niveau de la brigade.